يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بقي نوني دي دلال تسير نيانو بسبي تسير اميشن بونجورني يلين جاجفل دلين جرم دلين سمكي توب يبنين نيو توب نيو تي تور بورم بي بتاين بوك نينالا برينا لول نينكو تي وو تي دي ليني جوخ تورم بنغا خامي kàttanam lay wanewaat muy alqahaaru alqahaaru alqahaaru loolu mooy lan yàlla mi nga xam ne moo noot lépp nag mooy borom doole mooy forcé ñëpp nag ñu def li nga xam ne moom la bëgg su ko neexee doole googu la yore moom yàlla su ko neexoon kenn du ko moy par force lañ koy topp doole googu mu yor mu meloo ko ba pare nag boole ci mbaax xam nga yàlla noot lépp ci dooleem xam nga wax naa leen ci bi passé al Aziz kooku dara téewu ko la mais yàlla noot lépp su ko neexoon lu mu waay lu mu wax nit ñi def ko mais ci mbaaxam daf lay bàyyi wan la ne nag yor naa doole te dara téewu ma pour ma régler ko kon woo ko ci turam boobu ngir lan moom moom nga xam ne tey daf la féete foofu mu dimbali la sax ci ñi nga xam ne dañu laa bëgg a noot léegoo nit bëgg la noot te tegu ko fenn te yàlla mérité noot nit te nootu ko nga woo ko ci turam boobu mu jàppale la ci kooku jàppale moom mi nga xam ne mooy noot ñëpp mu naturaliser la say noon loolu dafa am solo nga ciy woo yàlla yaa xaaru yaa qahaaru bu ko jël nag ngir xeex ci kenn déedéet bu ko jëfandikoo pour xeex ci kenn jël ko rek pour xettali ko ci ñu la bëgg a noot te yàlla mënoon leen noot nootu leen nga wan kooku ne yàllaa la ko doole léegi nga dégg ko sax dama lay bàyyi yàlla yàllaa la ko doole léegi ñu wax ko pare ñu ko gëm daal di làqatu dem ca sëriñ ba wala ca keneen mais bu ñu gëmoon loolu ñu wax yàllaa la ko doole rek kon di nga gis ne yàlla day ñëw motax buñu wone yàlla ne mom rek man mo note lépp inshallah ñu woko ci ya qahar ya qahar dinañu wuyu te dinañ dimbali ci non yoy wala ki ñu bëgg note kon mbokk ñu leen gërëm di leen sante di leen jaajeufal ci topp beeg déglu beeg setan bi alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh allahumma ya man ala al arshi istawa يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم